ayca bisimilah alhamdulilah la ilaha illallah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñi nga mbégte del si arène nationale ànd ak Mbousnakh production di nuyu staff bi yëpp nuyu Modou Bous Ousseynou ngoom ñoom Père Birame ñi nga ñoom Aliou Baye Fall ñoom Seydou Ngom gaa yëpp ñu ngi leen di nuy di leen siyaar di am di waajal ba tey lan demee Korité war dem ci événement bu rëy combat yi am solo keroog ñëwoon nañ fi présenté fi ay combat espoir tey tamit del siwaat nañ indiwaat beneen espoir mu war a dajeek beneen daanaan ki ma taxawal nii kooku la ñuy wax Facebook facebook mi nga xam si ni mun a ñàkk ci àdduna mun a ñàkk ci réew mi ndax actualité yëpp fa lay jaar waaye kan la war a dajal mbalka mag mbalka nag ñëwul mais facebook ñëw na kon faaw ñu yóbbante ko yóbbante galgal ubul làmb waaye tey faaw ñu yóbbante ko bu ko defee jour làmb ñi nag bu ñu dajee ah ñu war a mën a jëflante facebook ñu ngi lay nuyu waaw ansu billahi mina seytaan rajim maa ngi lay fay grand di sant sama staff yëpp di sant sama ñaari waajur di sant yàlla bu baax di nuyu sama papa Modou Bous ak Ngel Jon ak sama papa Ndiak Sarr di nuyu booy ZM mi ma indi champion yëpp waa Caakri waa Cangaay mbus naa waa jaag sama grand wes ndak di nuy waa Mbari Kala Aliou Guèye Mamor Ndiaye Fallou Lep Jam di nuyu waa Caakri bu baax a baax a baax di waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant waa Ngunjaan jëpp Njoojon waa Cangaay sama mafia bi Ngultun Mbin Kër Yadouane gaa yëpp di woo Tanor ak Baye Sall sama mafia bi yëpp mbaytin waa ñaax Ngunjaan yëpp siñ tanis di woo sama grand Boursine 2 ñoom caatu mbambara gaa yëpp Zazu Ndiaye sama rakk waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mais pour Mbousnakh production taxawalan sa combat sa diggante ak Mbalka ndax loolu yomboon na négociation yi ndax gaawoon na non combat moom sama côté moom bu ñu d'accord man su ma gars yi suñu d'accord rek du yeexee ci man quoi waaw bu ma wee ne man ndax xam nga ko bëgg nga ko ma ne waaw bëgg naa ko gars yi waaw ci la ma woon ma combat bi taxaw na waaw di nuyuwaale Ousseynou Ngom mbus naa mhm. waaw maa ngi koy sant di ko gërëm ndax su ma demee bàyyi fii grâce à moom ndax sama combat yëpp presque moo ko def di ko ñaanal nag tawfeex mu dem ba tëgg ak ñoom Modou Lo ak Ama Baldé yow ok adversaire bi ñu la ko proposé nekkoo di ci xalaat ak yu mel noonu da ñëw rek jël non xalaat xalaat man du ma xalaat ci adversaire ñu ki gën a dis kooku laa doon jànkonte mooy Clémenceau boobu doon bëri bu war a bëri spécial bi mhm. waaw kooku koo ko gën a diis ma ko daq a bëre. waaw. te yàlla te dañ ne dañ ne cin bokkul te góor balaa nga kaa yab da kaa ñam est-ce que est-ce que xam nga la mu saf. ah non ñamuma ko waaye nag ba keroog rek incha allah man moom ah. bëre jaaxle ñu wala. nga bëgg koo yemale Clémenceau mi nga bëre ba pare. non dama xam ne kooku ko gën a diis rek. non affaire bi du ci diisaay nag du ci dëgër ko gën. waaw ah, maa ko gën a dëgër fuuf. ah loolu nga wax. maa ko ñëw ba kooku bokkuñu. Hmm. waaw wax ji sa jarul muy bëri. bu ngeen ne runkum daje yaakaar nga ne yow yaa ëpp doole yaa mën. kooku bu ñu dalantee mu xam ne man xale bu ndaw laa. Ah. bilaa walaay. ah kon moom mooy mag. ah moo mag foofu kooku bu ma koy dégg boobu xaw ma ko. ah a bëre. waaw moo njëkk a bëre moo mag. a bëre tekkiwul ne moo la mag. ay as bu ñu doon bu ñu fekkoon dañuy wax ay as si média ma wax fi ay as samay as. mais loolu wóorul ah. du ma ci dugg waaw. mais daal kon comme yow xale te làmb xale la faral war bi siflee kon yaa war a diriger waa ji déggoo li ma la wax de waa ji à hmm. domicile lay bëre Ngunjaan jëppay wàcc stade moom dëkk fi man maay diriger. Eh. war bi soufflé damay attaqué. Eh. waaw attaque sa koñ sa gaañ. mais ko am gan da nga koy teral de bu ñëwee noo koy ak ay yiree dalal ko. teral ji moom mooy dalal daan ko may ko loxo incha allah mu jóg ne ko garaawul. Eh. waaw mais kon doo ko door xanaa danga koy jàpp rek. ah lu mu laaj rek. Hmm. man na am sama dóor ko mu daanu de. waaw mais bu ñëwee ci dal mën nga koo jàpp defaral ko ndànk ndax teraanga moom moo lay fekk si mais bu ñëwee nag xaw a dëgëral combat bi Kourpañi du mën a ñàkk. moom daal santé pàcc moom nayaru rek. Hmm. waaw nayaru lu mu indi rek fekk ko fi nayaru rek waaw. mais croisé bi mu yor croisé bu am saafara bi ba bu dalee du yàq sa <laughs> waaw ba keroog incha allah. maa ngi xaar loolu. mu def daanu bu xeexee daanu bu bëree daanu. mais croisé bi est-ce que mën nga cee mucc. waaw moom ay croisé teewul hmm. balaa ngaa soog di nga ñun dañoo jaar ci ay loxo yu wóor. Hmm. sama papa bi moo Bouss. waaw daf maa yàgg a teg ci yoo xam wóor combat yu gën a dansé foofu laa doon jël génn ci. moo eh, Modou du dugg ci géew de ci ginnaaw barrière lay taxaw. waaw mais moom moom xolam <laughs> moom moom yéeneem. Hmm. ak lu muy def ak yooyu man ragaluma loolu. moo lay jox clé bi quoi. waaw yàgg na maa jox ay clé nag. Eh. di sant sama grand ngel jon bu baax di ko ñaanal victoire bi jig ko. ndeysaan waaw di sant sama grand ñoom bu daay. gaa yooyu foofu ba maa sant nag waa ba doyal mais xaaral ji wax ba pare ndax ñi seetaan envie ñëw seetaan si làmb ji sa adversaire tamit bu ko seetaanee gën a nekk ci combat bu doon def ñaari séance di def ñett ndax dalaa bëgg a teg lu métti dalaa bëgg a ñëw fekk si la jël ndam lu yóbbu ko instant bi loo ko wax comme ñëwul tey yan kàddu nga koy dénk. non li ma koy dénk yi comme ñëwul tey dina ñëw lendemain Korité incha allah na entraîné rek. Mm-hmm. xam ne am na xew de. Ah. waaw. Ah. panka bi lay bëreel Facebook. Ah. waaw am na xew de dina bëgg mu jeex te du jeex de. dama ko tàncee stade Ngoundiane. dina xam ne lépp dëgg la. yaa dafa am nga yéene ci moom de. bu baax a baax yéene bi mooy daan ko rek jóge fi man moom sama la moom méttiwul moom bëri daan bi la xam xooli leneen. Mhm. waaw yaa ma gën a xam. ci wàllu mobilisation tamit loolu tax na promoteur bi tëgg la wàllu mobilisation noo koy waajee. Ah, déggoo ma de man mbëru gox laa mhm. man caag li ma dëkk ak suñ taan yi. Mhm. cangaay moom ñëppay tuuru jaag di sant na waa jaag bu baax ak waa mbaalo sama doom baa yooyu. di sant waa jaag bu baa sama grand wes ndax maa ngi koy sant bu baax di sant nag waa mbaari kala xaaral xaaral balaa ngay sant ñëppay tuuru xam nga supporters yi lendemain korité dañu bëgg a ñëw nga jox leen déwénal ban façon jël wala ban façon combat nga leen di dig day gaaw day yéex wala da ngay duma loo leen di dig ndax ñu sawar ñëw no combat bi moom mënul ñàkk neex moom xaw ma dina gaaw xaw ma dina yéex wala dina am xeex dina am bëre te xam naa bu ñu xeexee bu ci dawul dara duma ci daw dala bëre bi moom duma koo jël teg ko nale à côté ndax naa ni moom tôt ou tard allah dinaa yóbbu ndam li caak dinaa ko indi waa càngaay ak waa caakri waa càngaay dañ maa yónni ak sëñ tànn yi bilaay walaay bilaay kon bu ma la ardo bu ñuy ñëw daal nañ indaale lépp bu dara manqué ardo man na sa ñàkk am wàll sax hmm. man sama yëpp vite fait la birib la dama mën a bërëte na bétuwu ma dara incha allah kon naroo taxaw ñu cons ko de bu ko neexee hmm. bu ko neexee ñu cons ko ah. waaw loolu ci moom la di sant waale na sama grand Billy maam góor Caakri maa ngi koy sant bu kon téema laa bàyyi nga woote nga sant tam ñu ci jàpp ñëpp waaw bu la nee wax comme waa ji ñëwul moom wax ji mënta bari comme waa ji ñëwul dañ koy gàttal rek ñu bàyyi la nga téemi ko bi woo ñi nga bëgg a woo ñëpp waaw maa ngi sant waa maa ngi sant waa Caakri bu baax di woo sama yaay yàgg na maa ñaanal sama rakki papa yi waaw di woo waa Ngunjaan waa Jaag waaw waaw di waa Mbari Kala bu baax sama grand frère ñoom Ndiaye Saka Jéeri xam nga Amadou maam Mor sama grand frère bi di sant waa Diag bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw waa Diag surtout waa Ngofe Diag di sant waa Mbourwaay sant waa Cangaay yëpp Mbusna Sintani nag Kër Baara Kër Birane Balta Sangar Nafar yu bañ joxaan komba bi seen combat la Mbusna di sant waa Cangaay bu baax a baax Cangaay nag su ma ko waxee Kër Sango ba Dulus la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di waxal di leen wax amaat nañ combat lendemain arène nationale gara komba ngeen jàpp ci waaw te a ñëw teel a dag bi ma defaral waa ji waaw Pikine maa ngi lay sant Ibra Diouf Mbaye Ino Sidi sama mafia bi Ousseynou Faye Baye Fall maa ngi leen di woo di woo sama papa Ndiak Sarr bu baax a baax waaw nangeen ngeen a teew yéen a ma sant waale sama grand Billy Dio waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal di leen woo buur Sine de Thiatou Mbambara maa ngi leen di wooyee ñëpp colonel Ndiaye Zazu Ndiaye di sant sama papa Abdou Serigne bu baax Diomaye waaw di woo maire Mbaye Dione nag ak Modou Ñing waaw di woo ñëpp waa Saamel joor maa ngi woo ñëpp sama gaay mafia bi yëpp maa ngi koy woo bilaahi li des bàyyi ma bàyyi ko ba daan incha allah mbaytin ñun yëpp